goon nañ ci alxuraan soo ko taree te bindoo ko booba mokkagut wax nañu Sëriñ Tuubaa daan wax naan ah mokkal mooy tari wattu mooy bind kon alxuraan dees na ko mokkal waaye nag dees de weesu mokkal ngir wattu ko wattu ko mooy bind ko ñoom nag dem nañ ba gis na jamono macha allah daara yi tasaaroo na njàng mu rafet mi am na tajwid am na xale yaa ngi dem sax concours national international di fa jël ay euh, martaba yu kawe waaye nag ñu seetlu ne bind moom mi des gannaaw te bind it mooy benn tànk bi nga xam ne ci la alxuraan di taxawee mooy tax mu des bi moo tax ñoom nag ñu génne foofu gannaaw am na ñoo xam ne dañoo séddoo tari alxuraan ak jàng ko njàng mu rafet di ci def seen i wërsëg di encore di ci encouragé njaboot gi mm-hmm. ñoom it ñu suñu borom may leen tawfiq ñu tànn kon wattu wetu bind ki mm-hmm. ngir lan ngir dund ngir dekkal ko ndax dafa mel kan luy bëgg a dee mm-hmm. dekkal gi nag mooy nii façon bi nga xam jamono xam na ko def ci ay concours def ci ay neexal euh, xale yi gën a yittewoo bind ñi ko mënoon gën koo téye ñi ko mënul woon it Ah, gën ko gën cee sawar te it am na résultat macha allah fi mu daara yi ñu ngi yitte woo mbind yitte woo ko xam ne euh, tool ñetti ak ñeenti at ci gannaaw mel woon noonu waaw kon lii mooy sabab sóob leen ci liggéey bi jërëjëf Serigne Moustapha Diop Ndar ci euh, tontu ak leeral bu am solo boobu kon mën nañ cee dégg ne euh, C3S moom dafa jóg ngir njukkalaat alxuraan ci taaral ko ci mbind ba tax mu ciy def ay konkuur waaye dina tax itam booleem kuy bind rek gën a bàyyi xel ne alxuraan bala ñu koo jàng wala bala ñu ko tari mbind mu moo cee jiitu yaakaar naa ne loolu rek doy na sëkk ci motivation kon sëñ Amdi Moustapha ginnaaw kaddu yu am solo yooyu lan nga ciy yokk. waaw li ma ci yokk de mooy dëgëral li sëñ Moustapha wax rek. Mhm. Eh, ndax eh, alxuraan ni ñu ko waxee léegi ci ñaari tànk lay taxawee. Mhm. muy jàng ak bind. Mhm. te alhamdulilah rabbil aalamiina réew mii di Sénégal. Eh, ñu ngi gën a sant sunu mag ñi te di leen ñaanal ndax tey gannaaw yàlla luñ ci am rek ñoom ñoom ñi ñuy wax muy sëñ eh, Alaaji Sëriñ Seck mi waaye buñ ko waxee daal di tudd eh, Alaaji Abdoulaye Dia ca wet ga ndax xam nañ ne moom itam concours bii di waa jëm ci wàllu njàngum tajwid eh, def na ci liggéey bu réy réy boo xam ne fi ne ci la sabab boo ay gone di jóge fii di jël ay ay raw gàddu ci concours national yi kon loolu dañ ci sa xam ne la leen ca ak la tax ñu def ko xam ne ñoom duñ mujjee projet bi mu réer ndax ay mag ñoo fi nekkoon ci nekkin wu metti nekk fekk ay kàccoor yoo xam ne dañu noonu du fi amee e, nekk fi ci ak ñàkk moyen goo xam ne amuñu woon ay ay moyens yoo xam ne sax war nañu mën a taxaw ba liñ liggéey ñu liggéey ko waaye teewu na gëm-gëm seen gëm-gëm gu dëgër ci seen borom ak xam ne lii itam risaala bi e, na ko yonent sallallahu alayhi wa sallam woon kenn ku nekk daf koo war a jël lawal ko nga xam ci mën e, fu mu ko mën a àggale mu àggale ko fa Euh, lool la moom moo leen ci jotale ñoom yi ñu teg ci seen bakkan ci fokk mu am euh, def ci ay liggéey yu rëy rëy euh, ko bind ko ba bàyyi fi ay mbind yoo xam ne nit yi boo gisee sax da ngay yoo xam ne ci boo seetlee léegi taarix jox mu yàgg lool waaye teewul naka jekk rek ñoom jàng ko bind ko dañ ko daan def. kon ñii itam bu fekkente ne yàlla dafa dogal ci sëtaat yi ñooñu lañ bokk yàlla mën leen gan ñoo am ay alal yoo xam ne xam nañ ne alal itam. Euh, la ci suñu gën a bëgg mooy nga dundale ci ci yoon yàlla mm-hmm. infaq fi sabilillah mm-hmm. te dara jiitu infaq fi sabilillah ci jël sa alal fexe ba may daan lii di eh, daara mm-hmm. ak liggéeyu daara nga def sa luy tax mu suqali ko ndax gis nañ ne mbind mu ngi doon dem gannaaw ñu bare bari eh, topp ko njàngum internet yi xaw a gaaw geeg modernisation bi ba tax bindatuñ waaye nag bi El Hadj Serigne ñëwee ak eh, jëwriñ yi mu àndal ñu mën cee tudd El Hadj Fallou Seck ak Serigne Dame Touré ak ñi ko àndal ñëpp. Euh, def loolu muy seen ittee dañuy def alal yu baree bari gis nañ ne fi mu ne euh, gone yi ñu ngi dalal ci bind bu baax a baax te li ci gën a yéeme sax mooy mbind mi dafa am yoon sax dama dama leen wax ne leen seen concours bi day concours bu maanaam bii moo ko ëpp maanaam moo moo ko ëpp ay ndax day delluwaat gone ci njàng alxuraan parce que concours bi liñ lay bindloo pour nga jàll ci euh, da ngay mokkal alxuraan mën koo bind te doo ko gis bind mu wér moo xam ne wér ga dañ cee sàmmonteeg bind ma rafet sàmmonte jaag mu tege ci Eh, rahmaani ni sàmmante jaag mu nekk mu wér kon loolu ku ci bëgg dugg te xam ne da ngaa bëgg a bokk ci raw gàddu ya fokk mhm. da nga jàngaat alxuraan bu baax a baax kon loolu ñoom soññi nañ gone yi pour ñu jàngi alxuraan loolu di lu am am solo kon mu mel ni seen sëñ di Moustapha wax nga ko léegi euh, muy euh, ñoo xam ne ni les C3S ñoo xam ne ni dañoo jël seen alal di ko dugal ci euh, yoon suñ borom rawatina li gënal suñu borom wala lenn ci li nga xam ne ni lu gënal mandargaal suñ ci ci mbiri suñu borom la muy alxuraanul karim mhm. kon yaakaar naa ne loolu ab jàngat bu am solo te ab soññe la ci mbooleem jullit yi nga xam ne nii am nañu dara wala mën nañu dara war koo delloo suñu borom tabaraka wa taala kon ngir wéyal waxtaan wi sëñ euh, Moustapha Diom Ndar euh, mbindum alxuraan wala jëmmi mbind tey buñ bëggoon a xam wàccuwaayam wala ban valeur la am ci yoonu morit ndax gis nañ ni am na tuuti ak aar ndax itam mbind dina gën a soñ wala dina gën a attiré ki nga xam ne dafa mbind mi mm. bu ñu bëggoon a xam ban valeur la am ci yoonu murit lan nga nu mën a leeral dëgg la euh, yoonu morit dafa am ay mbir yoo xam da koo jagoo mm-hmm. ba ci sa col gii mm-hmm. bokk nit li mu jagoo it mm-hmm. ci tirib suñu borom bi mooy bind yoon wi ku nekk xam na ne euh, li ko tàmbalee ci Serigne Touba Euh, yittewoo nañu mokkal yittewoo gu mat sëkk euh, mokkal goo xam ne dara du ci manqué muy feeñ ci naafilay weeru koor di naafila alquran jàpp naa ne fiiñ ko gën a xam ci réew mi tam yàgg fa mooy biir yoonu murit te it mu bàyyi ko ci sëriñ bi ak ñim yaroon tey macha allah law na ba nga xam ne tey ji eh, réew mi fu bari te ñu ngi naafila alquran loolu ak mokk la koy waral waaye it ñu fonkoon bind lool nag bind bind tey jii soo gisee kaamil bi nga xam ne sëñ Mamour Anta Sali moo ko bind da nga yéemu ci yàlla ci rafet gi ci ngay xam sax dafa mel ne que yoon wi mën a bindam mi ngi départ ci kamel boobu. Mm-hmm. te it mag mag ñoo ñëpp nag dañoo ami bind. Mm-hmm. waa kër Serigne Touba eh, njabootam gi góor ak jigéen. ñoom ñëpp dañoo amee kaamil yoo xam ne yenn yi muul nañ ko yenn yi soo demee ci biir njaboot gi ñu woon la ko mhm. kon dafa mel ne yoonu murit nis yàlla suñu borom joxo joxowoon joxoon uh, sëñ Tuubaa alquran mhm. xam ne dafa waxoon ne uahidu llaha ala axzil kitab bi xidmatin li Mustafa babi sawab mi ngi jaayanteeg yàlla ci téye alquran dafa jaayanteeg yàlla ci di ko jàng jàng ak di ko bind ak di ko bindulu daaray daaray kaamil yoo xam ne jàng jàng durus kese lañuy def ak ñoo xam ne bind kese la def kon yoon wi ci boppam moo juddu ànd ak alxuraan jàng ak bind ñu fonk nag ci bind googu nag lañ dem ba ràññiku ci lool jàpp naa jii bu ñu seet madaris école yi bind ci réew mi école yi ci gën a mën a bind bawal gii la dëkk te it mooy kon ci yoonu murit bi la bokk ndax ñi ci des fonk nañ alxuraan di ko jàng ak téere yi àndal yëpp di xam rasmu bi di xam dabt bi di xam boole yi mooy mooy runge yi di ko jàng nu nekk waaye nag bind moom fonkuñ ko moo tax dafa mel ka ne tey jii boo demee watu fuuta gi macha allah alxuraan daañu ko mane nu ne ak téere yi mu àndal xam-xam yi war a àndal ni ma ko waxee ci rasmoog dabtoog yooyu yëpp waaye nag ki mokkal ba def jaar foofu lijaasa lañ koy jox bu tëkkale moom yi mën na alxuraan dafa mel nag fii fi nun baaxoo wu ñu waxe lijaasa waaye bind kaamil lañu xam ne yow mii yooyu nga lijaasa nga xam ne kon fokk gone gi day wattu alxuraan da koy beqi benn yoon wala ay yoon wàññi ko bind ko bi ab kaamil boo xam du ko xool du ko geestu ba mu sotti léeg sax mu bind ay kaamil ñu doog a nangu ne kii de mën na alxuraan karim ah, kon euh, ñoom ñoo téye bind def ko muy bu bokk ci seeni aada di ci dem ba mu yàgg sax ñu fent ci ay écoles yu bari ndax fii ne mën ngaa génn école Guédé mhm. ci wàllu mbind mhm. mën nga bind école Njaareem ci wàllu mbind mhm. mën nga bind yi génne école sëñ Jëmb Cissé ak école école euh, sëñ sëñ Chouaib Mbacké bind yi fi ne boo ko comparé bokkuñu te bu ci nekk mbind mu rafet la nga xam ne kon dem nañ ba nga xam ne kon mbind moom aar la aar la ni ko ni ko ma ko waxee sëmb mi nekk aar ci yoonu murit yi tey maxtu wi nekk ko aar mbind mu rafetit te but ay ay madaris yu bokkutit tey dafa nekk aar boo xam ne dafa yokk leneen ci njàngum alxuraan karim mi loolu it bokk ci sax sabab si tax c 3 moom it jël ko ndax moom it dafa yaroo foofu dafa jànge foofu kon daal ni ma waxoon ne bind moom mooy ñaareelu tànkub alxuraan des fi waaye it ñu nit ñu am ci beneen spécificité mooy fonk ko di ko développé di ko sàmm def ko muy ijaaza ki wattu alxuraan su bindagul kaamil àggalagul bis bu bindee kaamil mel ne jox ni ko diplôme am yëpp euh, tax na mbind développé ci ci yoonu murit tarkala <laughs> sëñ Moustapha leer na naa nañ muy initiative bu am solo boo xam ne nii vraiment gis nañ ne C3S mu ngi koy def euh, ngir dundalaat bu baax a baax mbindum alxuraanul karim kon sëñ Moustapha ci point boobu itam lan nga ciy dolli loolu dafa mel ne sëñ Moustapha li mu ci wax leer na nañ mooy daanaka li tax mbind mbir mi e, gën a dëkk fii ak it ñu gën koo fonk mhm. ndax nit daa amul lu kilifaam mhm. te Sëriñ Tuubaa waxuma la e, e, maanaam taalibe ak njaboot gi fonk ko mhm. waaye demoon na ba àgg ci bëgg alxuraan ak dikk ko bind lu foo xam ne fu waaye bëggee dara sax da ngay dem bind alxuraan yit ko ngir boo ñëwee teral gam da cee teral du xool sax ndax mbir mi mel na ni mel na naa waaye daal bind nga alxuraan yit ko booba da nga da nga da nga yëg ci moom mbégte ndax daana wax ne sama xat moom ku yor alxuraan bokku ci euh, fu masaan yëg ku yor alxuraan moom fu mën a nekk da ko gis kon loolu bi mu fi jógee itam ay xulafaam mm, wéyal liggéey boobu euh, di ci soññee bu baax samp ay daara ni mu ko waxee léegi defe naa loolu la ngay tegtal rek mooy réew mi téere boo fi gis ñu bind ko mool ko te boobu naar kër Sëñ Tuubaa la jógee loolu nag Eh, seenug fonk ak seenug eh, xa sàmm seen trois loolu mooy moo leen may loolu mhm. loolu nag eh, moo tax ñi ni mu ko waxee tam waa société c mhm. mat la mhm. ndax loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne te alxuraan itam ñi koy beq bind ko ba ba ba jaaje ba jàll xam nañ alxuraan jum bind ak jum bind jum ni mel bokkuñu dara ndax moom daanaka boo ko xesee bind ba mu dëkk loolu moom teqale ko yow day day jafe lool euh, waaye nag bu dee mokkalu kese kese rek mhm. kooku moom daanaka euh, yokkal ma jaay yi boo ci duggee tuuti rek mhm. maanaam da nga ci day mhm. kon loolu ñu ngi ci sant bu baax baax di ci soññ it di bëgg it euh, njaboot yi muy daara yi ak sëriñu daara yi ñu xam li tax ñu def ko ndax lii ñoom lañ koy defal ñoom dañ ko dañoo gis ne yor nañ loo xam ne mën nañ cee jàppalanteeg waa daara mhm. ba waa daara xam ne seen liggéey bii kat mhm. lii ci la bokk tey waruñu ko sàggane mooy di ci def ay concours mhm. di ci def ay neexal yu am solo euh, ndax xam nga euh, prix boo gisee rek ak li ci daanaka ci tey seen kër dinañ ci gën a agsi incha allah incha allah rabbi comme noonu nga ko waxee rek dañuy daal di dugg kon ci concours bi ginnaaw euh, concours bi mooy jongante bi nga xam ne nii ay ndaw ñoo koy def léegi nag concours boobu ñu bëgg na xam naka naka la ñuy tànnee dongo yi ci tàmbali ba ba ci fin bi daal concours bi naka lay demee sëñ sëñ Moustapha. li am di doon wax ci wàllu mbir mhm. Ka day wax naan. Mhm. di tagg sëriñ Touba. Mhm. di wax ne njàmbur di bind di ko yit. gànnaar di bind di ko yit. Saalum di bind di ko yit muy jënd ay mool di ca rax. soo féetewoo di ko bindal. mu féetewoo di la dundal. Mhm. soo koy bayal di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox. macha allah eh, kon kon bind moom. Mhm. aada la boo dafa ànd ak yoon wi. Mhm. Eh, concours bi nag ni nga ko waxee. concours bu rëy. ndax concours national la. Eh, région yi dañuy def seen concours yi bopp. masalan ren jii fa mel ka ne Matam. Ziguinchor. Kolda. Kédougou. Sédhiou yi ñoo def seen concours ci seen biir ba karaw gàddu ga génn ca ñuy dem teral ko defal ko benn cérémonie bu mag ca maatam teral ko ci kanamu kilifa diine yi kilifa aada yi euh, doo ko ñëw nag ci national bi ndax yooyu ay régional la bi ku bëgg bokk ci concours bi ni ko si am di waxee concours bi wax yombut mhm. parce que foog nga mokkal alxuraan bu baax fokk nga xam rasmu mooy régle bi ñu koy bindi rasmu osmaani yi sàmmonteeg yax bi bindin bi sàmmonteeg masque bi suqi yeeg sàdd yi dara du manqué nga doog a ñëw nag man koo bind mbind mu rafet ci mbindum réew mi kon ñetti conditions yi mooy tax nga mën ci bopp mokkal dëgg xam it régal yi régalu mbindum alquran parce que mbindum alquran bokkut ak mbindum arab ñëw nag man koo bind mbind mu rafet ci mbindum réew mi ñett yi bu dajee daal mën ngaa bokk ni ngay bokk mooy bu demee ba lancé et lancé commencé dépôt yi. ku bëgg bokk. dangay ngay fab wenn xët. bindal sa aw xët rek. mbind mu baax mbind mu rafet. nga maas ko sox ko sàdd ko def ko ci enveloppe adressé ko C3S wala ay représentant noonu la ñuy def suñ demee ba nga xam ne date de dépôt bi jeex na. ñu tëj ko jëm na ci dépôt yi. dépôt yi dañu xool jari jal lépp parce que ren jii demoon na lu mat. ay ay ay juróomi téeméer. juróomi téeméer candidat. Hmm. mat na ko tegal na sax. Ah? waaw. waaw <laughs> nga xam dañ koy boole. Hmm. day fi ci réew mi nag. Hmm. déppi ko nag. génn ci ñi nga xam nag ñii jàpp nañ ne ñoom ñu gën a ràññiku ci biir mbind bi ko it commission koy def commission boo xam day boole xam alxuraan te xam mbind di seet di seet di seet ba génn ci loo bam bi xam ne ñii ñoo gën a ràññeeku ñooñu nag la ñuy woo ci concours bi dañu def concours boo xam ne pour lan pour xam est-ce que ñii ku ci nekk la nga déposé bañ xool ko ci département bi tànn ko est-ce que yaa ko bind wala wala bindoo ko buñ leen convoqué bañ dikk ñu def ñu def euh, pré pré kii yi pré sélection yi pré sélection yi moom it jafe na parce que ki dikk question lañ koy jox. question yi dañ koy bind def ko ci enveloppe kaste ko. question question bi mooy rek wax ñetti baat ci alxuraan mas na xul ma yarzuqukum mina sama wal ard yam foofu ni la bindal foofu ba ci baat sàngam nga teppi enveloppe bi gis sa sens li mu daje. aaya biñ la la tàmbaleel nga war caa bind ba aaya sàngam mu mat suwoon. doo ko gis. nga dem toog fee jox la daa jox la ay say xalima jox la say jumtuwaay nga toog nag bopp bind loolu ba mu sotti. nga maas ko suqi ko sadd ko doo ca bàyyi dara ñu jox ko commission bi nga xam ne ñoom ñooy surveiller bu ko ñu ñëpp defee ba dem ñu former ay benn jury boo xam ne ay sous commission la lu gàtt gàtt commission ba ñett dana ci nekk wala ñeent ñoo xam ñoo téye sa mbind moomu xool ko daañ ko jàng ñetti jàng daañ ko jikk jàng xool ko ba xam ndax yow mii mbind mi ndax jël nga wala jëlloo parce que jël boo jëlee ak runge mhm. moo nuy xamal ne moo ko des na mhm. te dañ koy wàññi ci say point mhm. soo jàllee foofu ñu dikkaat xool ko ba xam yow mii règle bi ñuy bind alquran mooy rasm ak dabt bi respecté nga règle yëpp te muy règle yu sew nag yu xuut moom it seet la ci natt la ci may la ci point doogu ñëw na xool nag côté nag calligraphie gi taar bi taar bi it commission bi xool ba xam lu ñu la ciy may kon nga jikk nga jàll présélection bi nag doogu ñëw nag ci final doon nañu ci final final bi 20 lay doon. Mhm. au moins 20 lay doon ñaar fukk yu góor ak juróomi jigéen ñu am euh, fukk ak juróom yu góor ak juróomi jigéen. ñoom it ni ñuy noonu bu ñu ñëwee def final bi noonu lañ noonu ay ay enveloppe lañ ñëw enveloppe da nga ñëw fekk mu tege. nga jël enveloppe loo ci fekk xam ne moom lañ lay bindaloo. dana mat robon ci alxuraan karim fu nekk nag mën na faa ñëw. fu ne ci alxuraan moom it nga toog jël sa jumtuwaay ñu surveiller leen kenn du wax ak kenn kenn du tricher kenn du dem ci wan ak kenn du déglu dara kenn du xool mbind nga bind ko mbind mu set wecc ba mu sotti ci anam yi ma wax respecté ci wàllu mokkal gi wàllu rasmu gi ak dabtu gi ak wàllu mbind mu rafet mi ñooña buñ noppee nag devin yooyu ñu ngi ci final ñu formé nag yéen suñu commission ñoo xam ñoo xam ñooy nag juri bi ñoom nag ñoo koy toppaat ci fànn yi ma waxtaan toon topp xat nag mm-hmm. topp xat goo xam ne Euh, daañ ci génne premier génn ca deuxième génn ca troisième mm-hmm. ci euh, ci ci ci ci ci vingt yooyu jigéen ñi daañu am ay neex ak ñi xam ñoom ñoo ci jiitu mm-hmm. waaye ci gàttal ñii lay demee nga xam ne concours bi kan ay weer la mm-hmm. concours bu yàgg la parce que loolu moo ba ci ay weer la day noonu ñetti weer yoo xam ne day day déroulé di déroulé ci gox yi ba agsi ci localité bi ba bañu agsi fii ci final bi nga xam ne euh, ci la résultat yi di génn ñu war koo mën a defal cérémonie incha allah dimanche bi ñëw. Euh, jërëjëf euh, Serigne Moustapha euh, Ndar mu mel ni liggéey bu metti la waaye bu organisé wu la. Mm, ndax organisation bi tax na ak xam ngi ci jiitu. Mm. tax na xëy na du metti ci ñi nga xam ne ñoo koy saytu. Mm. surtout waa jury bi. kon sëñ Amdi Moustapha ci wàllum sélection beeg yooyu lan nga ci complété ñu door a dugg ci cérémonie bi. waaw xaw ma comportement bi du am solo dañuy cay waxee rek ne ni mu ko waxee ni noonu lay demee. Mm-hmm. liggéey bu metti bu xat lay doon. Mm-hmm. waaye bu tegee ndax euh, mboolem ñi ko seq mhm. euh, xooluñu société bi xooluñu candidat bi waaye seen diggante seen borom la ñu xool mhm. euh, ndax xam nañ ne foofu ku ne xam la am te ko ci jox lu dul xam rek tooñ ko mhm. boo demee loolu moo tax ñoom ñëpp dañuy jaayante ndax mboolem ñi ci liggéey ñëpp dañoo gis ne société bi alalam la yor te bëgg liggéey ñooy def ñu engagé wu jël seen xam-xam ak seen doole ñu engagé wu amul ku ñu fay dara ñëpp ci liggéey ngi yaay kooku nag boo cee demee di cee def loo xam ne bàkkaar ma la mm-hmm. jar fekk moo tax liggéey bu ni ma ko waxee noonu lay demee mm-hmm. ñu bari ci dañ ci foog ay ay di critiquer wax duñ dem waaye ñàkk rek mm-hmm. ku ci bi da nga xam ne liggéey bi ñu ko séq ci dëgg rek lañ ko teg ndax da ngay gis koo xam ne mi ci biir liggéeyam doomu wala ab doongaam ne ci biir te du jàll kon bu fekkoon ne leneen mën na ci am du demee noonu waaye sélection bi noonu lay demee bu ñëwee